boo nee taalibe Cheikh Rafaal yi rek ku yàlla bind ci nga bokk soxna su gaaw daf maa wax ni ma sëñ Tuubaa leen ci njaareem na ngeen bëgg Cheikh na ngeen bëgg Cheikh Rafaal ngir li ma ko bëgg na ngeen bëgg Cheikh Rafaal ngir ngeen xam ni ngeen may bëggee na ngeen bëgg Cheikh Rafaal ngir ngeen xam ni ngeen di doxee saa diggante ak yéen daal ni ko am jom mbaa ngor nag mbaa nga am diine mbaa nga am lislaam di teg ci rafaal barab ndax mu teg ci waajur wi kenn tëgg ko fi moo tax mu defal ko lu mu dëgalul kenn mu mel ni lii day doon wax daaru xafoor sëñ Abdourahmaan loolu tudd ko ak sëñ Masamba daaru kii ni xafóor maam Saliou ne jaan ji bàyyi ko ci géeju Ndakaaru suuf ci géeju Touba gi moo ma jaaxal te gunóor yi di ci jaar géeju Touba ñoom li bët xam gisuñu ko sëñ Abdoulahi borom dëkk bi moo feeñal géej googu wa maskani salli minal fijaari loolu mooy ndoxum wala ngaan yi ci robinet yi citerne yi ak satadoo yi waaye géeju baatin gi ma nga fette fetto ma ma nga fette euh, ndox di tël boobu sëñ am suuf jaxate ne ne fii ma toog ak jumaay ji ak ndox géej gaa ngi bala di buusu daal di xëcc suuf génne aw coof kele ci la nangi du ma wax lu ma tuxaliwut su suñ tubaa moo tax damaa waxan ci télé ne su ma waxee ba noppi ku ko weddi sa baay ngay weddi mbaa sa sëriñ mu mel ne reewante du reewante dama dul toxale ci ku te du ma gone jotaay bi ku fi amul juróom-ñetti fukkat ma goma te tooguma noppi uma nag te sëñ Saliou Mbacke dafa xam ne moom mu tuubu nëpp te lu xam du ko fàtte te lu mu xamul laaj ko mën naa xam lu ne tax du ma toxal ci gone sëñ sëñ Ibrahima Jaxate noonu la ko waxee ma teew mu xët ci suuf génn ci teew naa ci këramu sëñ Cheikh moom Darou Rahman xalifaab sëñ Abdoulaye borom dëkk am ku ñëw ni ko dex gi day suñu ma neexaloon ma dekkalaat ko muy wala ngaan sëñ Cheikh ni ko mbaaru da ngaa def ñu ko tële de fee ne wut ñu ko tële daale ci kër sëñ Abdoulaye mu naa ah, damaa gis boylu ko sëñ Cheikh ni ko su ma neexal lii bale ci dex gi wan balaa kenn yëgg ci jumaa ji wut loo co sëñ Cheikh Mbacke daal di rëbbi ci suuf ndox mi ni tëf fi mu toog ñi bëgg a daw mu ne toog leen daal di ndox mi fenn di sa Cheikh Abdoulaye Rahman keneen bi ko sëriñ bi keneen see moom sëñ Bouglaye yi Baye Ahmadou Seck Econo Baye Malick Fall Yoff sëñ Ngunda mu maam Ngunda mu maam Sali mu mu Cheikh Rafal mu tudd maam Sali Fall. sëñ Abdoulahi Mbay boroom kere mbay sëriñ bi daa ñëw toog sëñ bi rend juróom fukki ginaar ne nañu ko te ndax saaw xeeta ganaar la bawoo ñu génn sëñ Cheikh mun na ak sëñ Abdoulahi Mbay mii sëñ bi xamul noor la xamul nawet la xamul lu ñàkk xamul lu amul ndax lépp daa jale ci kanamam ba defa ne kenn ñàkkul dara juróom fukki ginaar yi bu nu ko toggee suba bu nu wuti leen te tund fii ak njaarim ginaar desu fi nan nan nan sàkk pexe ci yenn yi ñu jël juróom fukk yi ñaar fukk ak juróom gënd leen ginaar yi jóg ak seen rendikaay ba teel suñu doon leen a rendiwaat moo tax sëñ Moussa Mbacke borom Daaru Xudoos ne ne li doomi sëñ Tuubaa sañ rey dekkal rendi ko lakk ko dekkalaat ko moo gën a tuut ci li mu sañ te sañ mu cee génne luy tolloog deedeewee waaye dangay gis koo xam ne day ne ci mbir képp dem ci kër ñu wogg may ko wogg suusal mu lokk amul lor yu mu tiflee mu génn ni jeel naa cere ji ci kër gi te borom kër gi joxewul ndigal ñu tibbaati ñam yi moo tax murit day def ndànk day teey day yaru day gëm day wóolu day yaakaar day wëkkiilu day gëm te gëm tey fàggu tey fàggu te xam kan mooy sëñ xam mooy si kan mooy sëñ bi mooy da koy tàmbalee ci donga yi door fii ci sët yi sëñ Tuubaa mi bind fulku ak te gën ñi moo ci mujj njëkk gis na ko der jooja bind ful ko mooy deret sëñ Saliou Mbacke mii bu ko weddi weddi sëñ Tuubaa sëñ Mbacke mat na mooma ni li ci kaas bi su dee li ci kafteer bu day ndax ci lañ ko xelee kon ku weddi kenn ku Ibra Fall nga weddi kenn maam Saliou mbaa sëñ Tuubaa weddi nga lislaam mooy islaahu dara yi ku sa lislaam yëgut ci moom jagle parce que lu sa tabax rafet rafet te sa courant yëg ci estu ci poste bu mag bi war a maye courant boo kontaanee doo taal mu ngi mel ni ku yor appareil amoo réseau amoo crédit duñ la woo doo woote mu du siyaare du joxe addiya du jàng xasida du naan kafe du siyaare sëriñ bi tey weddekk linkaar ci mbedd yi amoo yàllaa ko tuxa ka naana ka tiriyaa bu amul crédit la amul réseau du woo du woote duñ ko sëñ Assane mii toog bu xayli woon mbaa mu bàcc rek du fi yëg si daa toog ba mu ñëw rek ñu ne ko yàq ne yaay maam Saliou muy maam Saliou ñu denc denc bii mu yàgg lool waaye ku ne sëb cër ngay def lii da dib cëram yàlla na ko yeggale nu ànd koog moom tam lañ ci def daayira yii ko dar di sëñ Assane Ndiaye yeneen daayira yi ci des ak ñi ma xam seen i ñi ma xamul seen i jigéen ñi ne bitim réew ak jigéen ñi ne ci Sénégal ku ci mel ne Awa Thiam ak ñeneen ak ñeneen yàlla nañu fekk sotti te lii te suñuy sët ak suñuy doom ànd ceeg noonu te nu jekku ndigal ak àddina te bañ ñoo fekk ci lu ñu tere. maam Saliou ci àddina ci biir ci réew mi ci saayir waxuma baatin bi xaw ma baatin bi waaye ci saayir man bay Naar Fall góor ga sant ka noo jëkk yéeg ci état bi Aliou Badara Baro waxtaane maam Saliou bi ñu génnee dañu ma am ku ma téléphone ne ma ku la gën a dooru fit amul man ko lu tax mu ni maam Saliou nit ni la cee woor kenn mu sëñ taxaw ci rajo wax ko yow nga taxaw ci télé di ko waxtaanee ma ne ko gumba la gumba nee nan xeex ciw xeer la joggi mbaaw yet boo ko jigee mu rey la tam yow ku ko fekk ci borom mu modd la boo ko fekkee géej ay ci géeju bu ma Saliou Fall laa tëmb ña ca tëmb ba génn wax ma leen ma maam Saliou bàyyi laay ndiir ca ndiréen ga ca tubatoon bàyyi Mamour Gueye ca jandeer bàyyi Taala Ndiaye ca jandeer Anta Diop ca jandeer ñoom laa toogal maam Saliou leen yar ñenn ñi suñu wut maama leen yar Daaru Xafoor dama wax ci kanamu sëñ Abdu Lahat ma ànd juróom mbenn nu siyaar sëñ Abdu Lahat ànd soxna Fall jëgg fekk soxna Fall jëgg maa ngi ko xamee ci Sëriñ Asan boobu maa ngi tudd yàlla nga xam ne nii ñuy engagé Fallou Ndiaye ñoom ak Xaadim Gueye noonu lañ ma daa engagé ci turu yàlla may ànd ak juróom-ñetti xiin ak siiniin gone waaw fekk sëriñ Assane Thiès mu jëm màndang yi kër Seydou bu waay mu ne ci biir néeg bi ba midi mënut a génn bàyyi moor jóob tàbbi ni ko génnal ni ñaa ngi ci naaj yi mu ni fii ma toll oto attanu ma sërif li ngay wax xool ko oto lay attan dix tonnes trente tonnes mu ni maa raw trente tonnes bu sëf trente tonnes sërif a wax loolu ba yàgg mu ni tëll génn yéeg ci oto bi laal dara weer bi nelaw ñu taal dara mu ni ñu xëyet génn ni Mor Diop tab bi seen njaay yoon naay Mor Njaay Mour Mbaye saa yi rek samanaar oto atonuma fi ma toll bàyyi tab bi ni ko waaw oto bu la atun ala loolu yóbbu ma nag mu ne li ma yàlla yéen àdduna ak àllaaxira bu àdduna bépp dajewoon ci moom di ko bëriñ duñ ko mën a wëlbati moom Sërif Asal ba yàgg mu ne maamul xulle xanaa ko man ismul kabir newu fi bisimilah ñu ne Adama Sarr Adama Sarr ma daw ñëw rikkile der gi ma yoroon mu demaat ci ñeneen pont bouton mu ne ma sarax ak may ak jënd ak addiya ak saraxe loo ci def mën naa laa loolu ma reculer der gi yëkkati daaju badar ñëw carrière ñëw otoraay ñëw dàng-dàng ñëw ndaagum gëléem ma bàkk ko ni ku ko jëgg bàyyi jeefaal yaay géeñ mbambulaan ñay bu juree soow ma mu ne ñu génn ni saa perantal du yooyu du xiif du wopp du siburu moo ñëw fekk Baye Ablaye Ndiir Touba Toul moog Baye Ibrahima Faye ab xaritam ñu tiiñ pañe guro di ko jaay maam Saliou Fall ne ko Ablaye Ndiir defar naa sa jëmm ba ku la gis saa borom ko pañe guro boo tiim ku ca jënd sarxal ci kuy faatu dem àjjana pañe guro boo tiim ku ci jënd def ci may ngoro gaba di nga dégg maam kuy tuubante sa morom àq ak boo jëndee guro ga boo ca baloo te yàlla jéggal leen bàyyi bi laay mbir ni ma maam Saliou Fall nee ma mani la la ma godron bii bàyyi ko Dakar jëm si Touba bi ko maam Saliou Fall di wax kenn xamul dina am wala du am kenn la ma wax bi bi mu amee tey bëgg a jeexal nit ñi garaaw lii tax ñu ci ub jàkka yi maam Saliou Fall ko toxal sëñ ma Codé Fall la woo woo sëñ tay ba ànd na moom moom Saliou wuyu sëñ Touba Njaareem ku ko fekkee ma ko nettali maa leen